kon lu suñu borom bàyyi mu jàll bañ koy teg bët wala mu am am lu suñ borom nam mu ñu jàng ko ci bu ñu xool côté bee nañu xool côté bi suñu borom nam mu ñu jàng ko ci parce que dans toute chose y a laa gëm garab gi sax sax su ma ko taxee xool pour man y a une éducation la wan ginnaaw di dox a une éducation mais ci kaw nga am ku defar sa xol bi ba nga xam ne éducation boobu da nga ko mën a gis moo tax waa kër Cheikh Moussa nga xam ne ñoom ñooy wane gis wax woote gis yàlla ñoom ñoo am liggéey ci naka ñëkk li nga xam ne mooy tentation ci xolub jaam bi def ca yàlla bàyyi ko mu dem Cheikh Moussa nag lim lay xamal muy dëgg-dëgg diine mooy la quintessence diine nga xam ne moom la fi Jésus doon andi ba naan heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu nga xam ne moom la fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw yeesal si mu nekk islam nga xam ne moom la Ibrahima indi woon ba dindi fi idole yi daaneel ko ba bëgg jaam ñi di gis yàlla kennal suñu borom ba nga xam ne lépp lu nekk ci biir xolub jàmbi lu mooy yàlla dañ koy génnee tëral ko ba moo andi tabaski ñu rendi ko ba nga xam ne borom bi rek ay des ci biir xol bi loolu noonu la waa kër Cheikh Moussa war a njëkkante profité def ko ci am liggéey boobaa loolu mooy vaccin ko xasee ba piqûre jàmbi rek nañ bàyyi jàmbi mu dem fu mu mënti dem ak lu mënti xew loolu du ko mën a soppi seetloo ñi nga xam ne mag ñu njëkk ña ñoo leen ñoo leen yar da ngay gis ne ñooñu dañuy falal di wax ne éducation de base bi ñu def ci ñoom boo leen yebaloon ba Belgique baa nga yebal leen ba Turquie wala Israël fa juif yi nekk du leen taxa wàcc seen seeni principe du leen taxa wàcc seeni valeur bu ñu dellusiwaatee it sénégalais bi fi jóge woon la ñuy doon dara du soppeeku ci ñoom xam nga loo ko waral parce que dañ leen a rof vaccin éducation de base boobu vaccin la waa Kër Cheikh Moussa ñoo war a gën a jugaat takkaat laxasaay suñu boroom dimbali ñu ba ñu jot secret boobu ngala suñu goree buñ ko noppiwaale nañ ko yaatal ndax ñun moom defaru nañ amaana ba noppi mais Cheikh Moussa dafa nekkoon koo xam ne daawul noppali ko daan na yéeg ci saret takk rajo di wër di wax baat bii ngir jàmm ñu jot ko réussir ci dem na lay taayoo loxoom ci ci ci kaw lal di di téye micro di soññ jàmm ñi góor yàlla yi bu ñu dem ba toog am lassitude maanaam bàyyeeku léegi tëw wax jaam ñi yàlla nañu wax jaam ñi yàlla te nañ leen wax yàlla ji nga xam ne moom lañ nanti Cheikh musa ndax mooy faj ndax léegi jaam ñi ils son tendance à que di wax leneen lu bokkut ak yàlla ji ñu Cheikh Moussa jox Cheikh Moussa def ñu leeral lii dëgg-dëgg diine du julli gi du woor gi du nat asaka gi du aj màkk gi dëgg-dëgg mbir mi mooy xam sa borom àgg ci sa borom di ko gis fàng daj loolu mooy mbir mi te jaam ñi Cheikh Moussa àggale ci yàlla ba nga gis ko ak say bëti bopp la wax nañ ko kàddu jaam ñi ci te loolu kenn mu ne su ko am lu dul ci laa ilaha illallah sëñ tubaat ci wàlla boppam dafa fësal ne ku gis leneen lu dul borom bi mu ne génn nga diine fa kullu man raa si wallaahi ahad fii ay shay'in fa huwa murtadin jihad ana lan moo jàpp rijaalullaahi ba ñu toog ci maqaama boo xam ne jamono ji dañuy suul loolu di woowaat jaam ñi ci leneen loo xam ne du diin lii dëgg-dëgg diine mooy jaam bi nga àggale ko ci boromam ba mu jeex ci boromam di gis boromam ci boppam di gis boromam ci lim janool loolooy mbir mi sëñ Tuubaa bi mu ñëwee su ko neexoon yemale jaam ñi ci julli woor nag aska aj màkka dafa tas daara jooju daaray jàng ak jàngale da koo tas andi daaray tarbiya xanaa duñ bàyyi loolu xel sëñ Tuubaa def ne lii fi ne ku ko yor maag yow bokk ku ko yor maag yow bokkuñu dara aw ma doom aw ma jarbaat lii fi ne googu duñ ko lijjanti lu mu doon ndax jàngum alxuraan la te mu tasoon alxuraan lii fi ne googu duñ ko lijjanti lii fi ne googu mooy àgg ci sa borom bi nga xam ne moom la wootal àggale jàmbi ci yàlla ba mu jeex takk ci boromam marale ko ak boromam ba nga xam ne boromam lay xel dundee ba naan rëkk dey ah yàlla ba jàmm nga am duñ dégg kàddu Cheikh Rafal googu sama mbokk góor yàlla nañ taxawaat ci pays bi